du ma leen mus a yóbbu ci yoon un homme politique ak un professionnel de la presse. Ah, xanaa dañoo deful lu ñu war. non moom nee na du leen mus a yóbbu ci yoon ñaar ñooñu. da fekk daf ñu lu ñu. ñu ne ko lu tax mu ne ñoom seen làmmeñ rek la ñu woddoo boo ma waxee ma wax tontu la mu jeex. presse dafa am doole ci réew c'est pas pour rien ñuy wax ni presse moom mooy quatrième pouvoir donc presse dafa am doole ci réew man séntu naa. Euh, parce que tamit su ñuy wax la répartition des fruits de la croissance presse daf ci war a gis boppam yàgg naa ko plaider ma wax président de la république yow li nga am ci ay programme du jeex li nga am ay ay ay ay projet du jeex projet bi dafa laaj communication lu ñu ciy def ci communication yi organe de presse yi nekk fii man nañ ko tey bu ñu doolee wàllu tourisme la promotion du tourisme à l'intérieur du Sénégal tout ce qui communication jox ko set TV par exemple nga fay ko bu dee tourisme religieux lu mu ci mënti doon ci wàllu tourisme dama jox rek un exemple mooy des programmes du gouvernement yi laaj communication mënoon na nu xool nu gouvernement di jàlle parce que man aide à la presse gëwuma ko li ma gëm mooy presse bi c'est un nid d'emploi ay junni junni ndaw ñoo jublu wuti di presse bi je je parle des techniciens ñoo xamante ni doo leen gis te ñoo nekk ci ginnaaw caméra yi ñooy monteurs yi y énormément de jeunes qui croient à la presse sénégalaise mais da ngay créer conditions yoo xamante ni d'épanouissement économique d'abord parce que yu ci bari am na des acteurs de la presse ñu koy def suñu ko def c'est des questions de survie suñu créewul xamante ni ay débat waxante lu bon waxante lu ñaaw mën na am du ñu am visibilité parce que mënuñoo accéder ci marché <laughs> marché état mënuñoo am publicité et cetera y a énormément de choses parce que tey aussi euh, euh économiquement économiquement sunu organe de presse yi may mun a li may xam na ko ñu ko jiite bu ñu tëddee du nelaw charge yi bari ba amoo amoo lu dul aide à la presse. ca état am na loo xam ne bu la taxawoo soxlawoo sax aide à la presse na la jox benn rek xam nga yow plan Sénégal émergent dama ko jox benn organe bu nekk bitim réew bari na loo xamante ne ci publi reportage yi ay Jeune Afrique lañ koy jox wala yooyu na état jël ci programme am rek tànn les organes de presse yi nekk Sénégal ku nekk mu am sax au moins lu mu la jox nga gën cee gis sa bopp bu boobaa nag ñu taxaw nag liberté d'expression mais responsabilité. ah bon da lay jox ba pare. non waxuma moom waxuma moom waxuma état. Hmm. l' état a le rôle régalien. Hmm. de veiller à la sécurité des personnes de leurs bien hmm. presse ak ñeneen a ci yëpp waxuma état de ñun ñëpp Sénégal ñu toog ñu xool dama nekk organe de presse taxut lu ma neex wax. on ne reconnaît plus qui est journaliste et qui le journaliste doit être équidistant lorsqu'il traite d'une information